ñett yoo xamante ne waru ko ñàkk te si ñett yooyu ñaar yi benn bi mooy crédibilité ak autorité loolu dafa manqué en fait ci état bu Sénégal parce que bu autorité génnee di wax mën naa jàpp ne li muy wax comme li mu doon par rapport ak procureur du caaxaan mais tey dañoo dem ba désacraliser yu bëri donc crédibilité boobu ak autorité boobu presque dafa fay ci lu bëri beneen côté bi dafa am koy wax naan lu démb maye woon tey su ñëwee da koy nangu man dama mës a jàpp depuis les événements de mars que tey police gendarmerie armée dañuy toll foo xamante ne il faut que ñoom ñu génn wax ak nit yi parce que am na foo xam dama fay toog dama naan l'état ce n'est pas Macky Sall donc loolu dañ ko war a def bu ñu ko defee dina tax nit yi comme yow li ngay wax ni si cause bii nii ñoo xam ne am na affaire yu bëri yu am Kédougou ñaata kii lañ faj arrêté yoo xamante ni ci affaire jihadisme bi lañ nekk bëri nañ ñii nga xamante ne tey gendarmerie wala police ñoo leen interpellé man dem rek j'ai discuté ak koo xamante ni Auchan lay liggéey en Sénégal mais daf lay wax yoo xamante ne gendarmerie ak police dañ leen di informer avant dara di xew am na ñoo xam ne fi ñuy defaree seen affaire yooyu lañ leen di fekk jàpp leen yóbbu dañu génnul nag ñoom police wala gendarmerie di communiquer ci loolu. nee def naa plateau yoo xam ne après ay journalistes ñoo ma wax ne procès yi ngay wax ni ñun demoon nañ ci. te effectivement ay nit la ñoo xamante ni police wala gendarmerie xëy ñu xëy rek dem jàppale am na lu tax ñu jàppale appel à l'insurrection parce que tey boo gisee ñuy wax sensibilité wu sécurité Sénégal actuellement mooy li ñuy wax naan li ñu wër yëpp te tey comme li may wax éliminer nañ verrou yëpp yi nga xam ne moo doxoon suñu diggante ak dëkk yu bëri Sénégal rek moo fi des taxaw nii moo tax ñun ci côté ay schéma sécuritaire ay schéma étatique il faut que ñu def attention te schéma yooyu il ñu teg donc amul lenn loo xamante ne da ngay am contre un militant tey man je pense que man comme n'importe qui ay élèves yooyu jàpp leen amul sens jàpp leen amul sens waaw mais aussi nañu def sensibilisation bu bëri par rapport ak affaire yu bari ñu bëri tey dañuy dugg ci benn mbir topp mbaboor bi nii rek alors que derrière mbaboor boobu y a beaucoup de réalités yoo xam ne ñoom duñ ko xam plein de gens sont en train de parler di yooxu ci mbir yoo xamante ni maîtriser wuñ ci daal bëri na suñu dëkk yi yow jàpp nga ne donc il y a des soupçons fondés. man loolu laa ma sa wax man sama discours musul musul dañ ci lool musul dañ ci lool. loolu dafa procureur wax dëgg la dëgg la c' une réalité. il faut le dire quoi. non effectivement parce que man en fait comme li may wax quand tu booy analyser xam nga tey dafa am de la dénonciation am loo xamante ni exposition des faits am loo xam ne critique la man mën naa ñëw tey gis nga li ma wax ci Ousmane Sonko gis nga li ma wax ci Macky mais dafa am loo xam ne dafa leen jéggi ñoom ñaar suñu sécurité la. loolu du politique non du nga ànd ak diw wala nga contre ko ça n'a rien à voir avec ça mais lii c'est la sécurité du Sénégal mais autorité bu mel ni procureur bu génnee di wax kenn warul laam-laame sa li may wax su ñu demee ba koy def rek ça veut dire que tey comme li may wax yow mës nga gis histoire du Sénégal ñu jël le haut commandant de la gendarmerie ay journaliste di ko affiché di wax lu leen neex il y a un problème il y a problème moo tax état autorité boobu noonu crédibilité moo koy fondé ñun nag yooyu dañuy dem ba ñu ñàkk ko moo tax ma doon wax benn Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi parce que limite yëpp lañ franchir. l'État a perdu de son autorité. si bu baax bu baax bu baax a baax loo wax tey parce que couleur politique bi mooy tax te loolu c'est un problème dafa am fu état yi toll am na yoo xam ne kenn du ko politiser mais ñun nag loolu lañ deful. et donc l'armée a eu raison mu génn communiqué wala est-ce que jaroon na ko. jaroon na ko bien parce que tey li tax ñu reculer ci manifestation 3 avril. mais ñun ñi nga xamante ni yëpp on a fait mais ñun dañ doon wax ne tey le 30 procès boobu noonu fi ñu ko degoon sax baaxul parce que dañ doon wax ne tey il ko par exemple ñu incriminer Ousmane Sonko ou quoi que mais même les installations du 4 avril mën nañ ko yàq moo tax bi ñu bi armee dafay communiquer ngay gis gars yi reculer il le fallait te ñun loolu dëpp le début rek koy wax dañu ne armée dafa war a génn parfois wax le chef de la gendarmerie le chef la police parce que ñooñu tey doo leen jël ci ay couleur u Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan non du tout ça c'est la république mais yooyu yëpp doo sax comprendre lan moo tax ñun suñu réew yi di xool affaire yooyu mais defuñu dara en fait politiciens daal ñoo fi nekk di wax leen neex saa bu leen neexee comme il veut. bu Yewwi Askan boo boo déggee des hommes di def appel à l'armée euh, di demander aux militaires euh, de prendre responsabilité yow en tant que ancien militaire lay lay lay lay am ci yow. loolu laay wax. parce que tey am na de source sûre loo xamante ne da ngay dem ba gis ne Yewwi Askan Wi bu ñu sañoon Macky Sall du égali nguur gi armée mooy jël pouvoir mhm. moo tax man noonu da ngay toog dama naan Benno Bokk Yaakaar sax ah, mais Yewwi Askan Wi def lu bëri loo xamante ni bu ñu sañoon Macky du égali mooy jël le pouvoir mhm. mais ñàkk xam danger bi nekk ci lool moo tax ñuy def li ñëpp moo tax waaye Yewwi Askan Wi ce sont de grands enfants d'une irresponsabilité et d'une maturité boo xam ne kenn xamul foo koy takk on a souvent chanté euh, nu mu tudd euh, la compétence de notre armée son sens de la responsabilité la crédibilité de notre euh, euh en tant que ni nga gisee aujourd'hui l'évolution du pays est-ce que xalaat nga ne y a un risque euh, bu ñu continuer euh, ci yoon bi que le Sénégal connaisse les mêmes euh, mouvements de déstabilisation que la Guinée, le Burkina, qui fut stable d'ailleurs euh, sous Blaise Compaoré. Président de la République dañ koy woowee chef des armées parce que à l'origine c'est un moo tax l'origine géographique de l'État c'est parti de la guerre donc bu ñu demee nag ba xam ne que guerre boobu noonu ñi ëpp doole tey réunir nag et que bu ñu continuer guerre day ko mener à leur destruction totale si lañ toog autour d'une même table maintenant ñu indi la diplomatie ci la ñu waxee chef militaire boobu mu summi tenue-am yére civil donc tey le pouvoir appartient à am na politiciens yi fu ñuy egg mais armée day jëlee fa te Sénégal dañuy dem ba ti dimension yoo xamante ni couleuru armée boobu da nga koy gis muy génn. couleuru armée ban. maanaam je veux dire que dañuy dem ci ay dérives yoo xamante ni man du ma bett tey armée jël pouvoir. ça va du si dañu egg si si extrémité yooyu ñun on n'est pas en politique ah lii gars yi def nii on est dans de l'animosité on n'est pas en politique l'opposition c'est là où pêche le pouvoir pour sa continuité sànq ba la ñuy wax continuité mais kenn du jiite réew koo xam ne jógewoo si opposition non képp koo xamante ni dugg nga ci biir opposition bi mais yow ça veut dire yaa ngi ci benn machine boo xamante ni mais finalité bi pouvoir mais tey pouvoir opposition c'est de l'animosité c'est pas de la politique te bu ñu continuer armée mën na jël pouvoir man loolu depuis mars de dama koy xalaat te mars 2021 sax on n'était pas loin les gens ont négocié pour que Macky bàyyi mais luy même il leur a dit qu'il n'avait pas peur que l'armée prenne le pouvoir ci ça ah bien sûr Macky Sall <laughs> pour mu def discours après événement mars mais les gens ont pour sax te moo tax ma ne la dañu dañu nekk ci ay irresponsabilités yoo xam ne moo dugal réew mi ci situation yi xeex yi fi am nit yi ci gaañu yi ñu rey yépp mais munoon yëpp mënoon a ñàkk irresponsabilité politicien rek moo ñu indi fi